be خلق israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan er min lisaani yafqahu qawli ودمرا كل داع تلير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن ميسا لنا من سر سياسدين ما سر فمن وسر عيني يا الله وسر سيري وسر خلقهم سي ماجيني وسوات سما يا الله ginnaaw bi nu sant yàlla julli yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bala ñoo jublu ci waxtaan wi na ku ne ni jërëjëf xaadimu rasul jërëjëf xaadimu rasul allahumma ala sayyidina muhammadin wa sallim laa ilaha illa anta subhanaka allahumma rabbi faghfir li inni kuntu mina salimin gannaaw bi nu sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di wax di def góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ndax alxuraan fu mu wax muslimina ak muslimaat dafa toloore jigéen ak góor ci lépp ñu jiital ci ki waral lépp nga xam ne bu du woon mooma ñu ñu duñ mën a judd ba nekk fii di wax yéen muy Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacke ibnu Sëriñ Modou Cheikh Massamba Mbacke ak Soxna Faali ñu di leen di sant Soxna Faali Njaay di ko nuyu di ko balu àq ndax lii lépp ab liggéeyama ca Belel ca Darma ca Jaaga kon nag ñu ngi lay balu àq di nuyu soxna Fat Njaay rakkam ñu bokk ndey ak baay ak di fàttaliku soxna Sooda Njaay di way juru sëriñ Basiiru Jóob ak sëñ mut sëy ak maam Seex te lu ñu def boole ko ci di nuyu sëriñ Mbay Njaay ak soxna Leen Jaañ ak yaa soxna si ñaan ak yaa jeeg nger Serigne Mor Nger ak Aji Maguette Ndiaye di way juru Adja Jaxate di nuyu foofu soxna Ndey Marème ak Njéene Diouf ak soxna Yaafaal ak Mati Jaxate ak soxna Faati ak soxna ak soxna Sofi Jaxate ak njabootam yépp sëñ Jibi Jaxate sëñ Bañing Jaay sëñ Basiiru Jóob sëñ Omar Fall Cheikh Mbeng ca Mbàkke Leemu Caam ca Gàmbi Mut Caam Abdou Silla Cheikh Jaxate sëñ Maxu Jaxate ak sëñ Wéye Njaay mi nga xam ni mooy papay Cheikh miine ci biir kër gi ak sëriñ Cheikh Cissé Casamance ak sëriñ Ousmane Lay Gosaas dama ak sëñ Mourtala Saaxo ak ki nga xam te ne nii bañ commencé ba léegi kenn mënu ko muy Ibrahima Guèye ñooñu damay tënk foofu jëwriñ yi mais dama fi ñëwaat nii di nuyu yeneen jëwriñ yi muy sëriñ moor nger mii nga xam ne ci moom la njëkk amee ab taalibe 1995 ak sëñ Jibi Jaxate ak sëñ Basiir Jóob ak sëñ ak sëriñ Nasib Sugu ak sëriñ Maas Bey léegi ñoom ñëpp danoo bokk boobu secteur ak sëñ mut sëy même sëñ ba ci sëñ Alaaj Seeg ak sëñ Bas Diop ñoom ñëpp dañuy bokk ci secteuru Dakar boobu Mbàkke Bawal mu am ko pastefu lool waa kër gi xam muy Seex Mbeng ak Moor Mbeng sëñ abdu si la yaag sëñ Maxu Jaxate ak sëñ Pape Ñeng ngeen dolli ci kuréel gi nga xam ne daawul lañ jébbalu ay tut tànk tudde naa leen jëy sunul karim man damay def tur wi dama koy booleeg daarul karim ji tax ñuy def jëf ji te loolu arab nangu na ko arab bu seen lay doon kon jëy sunul karim yéen ñi sol maron yi yéen yéenay jëy sunul karim kuréelu sëñ Abdou Wahab yéen nag dolli ngeen nu jom ba bu ci yàlla àndee ci ñuy fanaan ba bët seen ngeen di bopp ndax rajo yi day fanaan ñuy juróom benneelu kuréel Afa Mouride ñu fay nuyu sëñ Moussa Welaan ak Kaatim Touré ak sëñ Amadou ak suñu yaay yaa soxna si ñaan Gàmbi limoon naa leemu ak mut caam ñi ngi ñëw dafa am ay bagage yu ñu yoraale Casamance dafa sori lool ñuy jaalewaale foofu sëriñ Mouhamadou Lamine Cissé papay Cheikh Cissé ak Faati Bintu Cissé Amérique sëriñ mu saaliwu Thiam ak Modou Waaj ak Abbas Diagne mii mu àndal nga xam ni sama safooru àjjuma la ca géejewaay cité enseignant Italie ñu jëkke ci jëwriñ ju mag ja sëriñ Jaga Seck sëriñ Cheikh Mbacke jóob sëñ Murtada Sakho saara moom dama koy def ci waa Espagne ñi moo tax sëñ Bay Espagne ñu jiital ci sëñ Mbay Sakho sama nijaay Abdouane Ndiaye Basirou Touré ak Jégg Mbaay Angleterre ki nga xam ne moo man ci jigéen ñi moom mooy numéro un muy soxna ndey Mariam Jaxate ak doomu ndeyam am Jaxate ak soxna naa Fall soxna Sëñ Daam Mbàkke nga xam ne moom lay dalal ñun daal mburoog soow lanu sëñ Fallou mu fi nekk ànd ko fi yàlla yàggal ndax lu mat fu 2010 ba tey moo yore intérim bi baax lool ku sëñ Moodu jur ren jox na la ndawal bu doy ak yàpp wu doy démb ci ngoon rek laa ko jëli di bokk ci suñu groupe bi nekk doom ñun benn xalaat boo indi mu tëral ko ci pénc mi ñu bokk di ko waxtaane xam nga loolu boo amee sa kilifa mu wayaf wayaf dafa xew ci jamono ku diis rek ñàkk nit ñi waaw ku diis ñàkk nit ñi booy boo fi jógee sa ginnaaw boo fi bàyyi wut ku am diini ku wayaf ku jàng ku nungoo jaxasoo waa àdduna ci taalibe yi am yërmande liy wax inaate nakal kawsara wal ab tar da lay daal mooy ak nen yàlla yàlla musal sëriñ boobu nag doxuñu tuuti rek ab sëriñam làqu muy sëriñ Moustapha Massamba Mbacke ku bari xaalis ku nungoo liggéey ku dégg arab ku koo xam te ni foo dem ci senegal am na fa kër ñu rob ko ci Daaru Karim dëgg yi Daaru Karim sëñ ma Samba sëñ Cheikh ñu denc ko ci Daaru Karim gii nga xam te ne mooy Daaru Karim gi sëñ ma Samba daan fatoo xalwatu sañ tuubaa digal ko ko moo sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou kii sañ ci tundoo di kii sant Usnul Maam ñu koy wax tundoo di doxuñu tuuti bàyyi bekkaa jaxate yéen daayira bi xam ngeen ne masse militaire mii mooy ab taawam doxuñu tuuti bàyyi bekkaay dem ñu rob ko ca mbaaw ñu bàyyi suñ soxla yëpp dem ci yàlla nag baaxee nanu léegi li tax mbooloo mi dana gën a yokk dañoo tënku woon amuñu demukaay waaye léegi luñ ci yëg rek dañ cay dem ba noppi demal ci taalibe yi dugal ko ci groupe bi ndax liggéey moom déggoo rek la ci suñ mbokk yi doxuñu tuuti rek bàyyi amar war nu ginnaaw te xam ngeen ne amar géey mii doom mi ngi fi te ci jëwriñ yi nekk saam la ak wiyee mi nga xam ne fii ngeen ko daan gis muy raxas nekk ci liggéey bi mooy bàyyi seex mii loolu lañ feetlikoon kóllëre ba bàyyi fi seex yàggatuñ tuuti rek ci kër ba Aline Alex Ndion nga xam te ni nii amul bis bu ma woo di ma booleeg aji njóoba ak di ko wax lu rafet ñu xëy rek ba Alex ñu ubbi néegam rek fekk Alex dem ak suñu yaay joo xam ne mooy yaay Mor Njaay nii nuy ñewal maag sëñ Moodu ak sëñ Seex muy yaa Mbaay bi ma dikkee jàll ji naa ko ak kuñ naan Tafa Guèye ci taximaan yi la nekkoon ñu yàgg lool am lu man ñaar fukki ak suñu ilimaan yi bopp ji ci koñ bi muy Baye Abdou Khadir Seck ñu daal ko wax Baye Seck doon doon jiite suñu lépp ak ak Baye Moussa Ndiaye Amérique di taaj waa ko suñu àddina bu am ngër moom di Baye Cheikh Ndiaye Bali ñii nga xam te nii moo jiite kuréel bi moom Modou bii yàggatuñu ñu dem. tamit suñu bàyyi lamin Cissé di dëkkandoo Baalin Jaxate mii di bàyyi Seex mi wanati nu ginnaaw lii nag bokkut ak bu damaa tënk bokkut ak ñi nga xam ne bés bu set ma guux ñaari kaasi kafe daal ne Ibra sa moo faatu dem leen ba ëllëg li ma tënk nii fanweeram laa bàyyi ci loo xamante ne nii maanaam bés bu set armeel yi lañ dëkke dem arab di ko wax taaut muy lu xaw a metti tamit lool ku ko man ci mboolem ñi fi nekk jigéen ñi sax ñoom bokkuñu ci ndax waxi sëñ Tuubaa laa ne góor ñi la tàng ci ñoom lool ndax jigéen ñi at yi weesu la woon ku ko ci man da ngay wut fanweeri kayiti tabax talaata ju ñëw nga ñaanal ci sa njaboot ak sa doom ñu tukki ñëpp yàlla dana la fi bàyyi ba déwén ci kàttanam incha allahu rabbi dëkkandoo yi may sant baay malik Bey mii nga xam ne mooy Baye allah ji mool Bey mii nga xam ne kuréelu dee bii moom ci jàppale bañ àgg fii ñu tax suñ fàllu nekk te ñu wert nii bokk ak jigéen ñi ay déguisement ak Baye Abo Ndiaye xasaayit ak sëñ Pape Faye noddukat ak sëñ góor a Touré ñi ma tiim di leen balu àq di leen sant di leen xam ne dëkkandoo moo ko yàlla da koy laaj ba ci bàmmeel yàlla buñ séq lu dul jàmm rek man nag dama naan lépp lu ma séq ak nit ba ci rabu àll wa dana ko respecté xaw ma nu lu ma ci yàlla àtti ëllëg ak di sant di nuy foofu yaa Anta Amar ak sëñ Modou Bey ak Maas Diouf ak soxnaam siy jóge Gàmbi taaru lool ak sëriñ si Aliou Njoon ak sëñ Ameen Njoon ak Cheikh Garmi Fall nga xam ne jàpp na ci bis bi lool ah bu bis bi jàllee day dam am ñaari weer boo ma yóbbuwut Jurbel dana boo ma yóbbuwut Jurbel dana ma jaaxal de dénk ma kaay may réet rek man nag dama def na sëñ Moodu Moustapha defoon sëñ Modou Moustapha daa sas ñépp sas Cheikh Ibrahima Fall raay bi Cheikh na koo joxe sëñ Basiir na ko na ko xaaj barkeelu ci waaye nag sëñ Modou Moustapha moom moo jël coupe bi moom sëñ Modou Moustapha Fall dañ ko ne loo sasoo mu ne sasoo naa saa bopp ak waa kër Cheikh lu dul saa tubéy ak duma ko am ba ba jumaa ji mat billaahi màggalu Tuubaa damay maye ba maye samay silip duma ci yem ak samay dàll duma ci yem saab dépense kër dama naan sëñ Touba yore lépp di joxe rek bassin bii damaa yërëmoon Baye Moussa ñoom xam nga lu ma wax dama ne ko bassin bi musaa Moussa 800000 la tiwa bee 120000 la rek ca maa ngi bay saaxu génne nañ ko ñu may man ma ne ba jënd waaye gis naa ci borom Touba Mbàkke ne kon ñoo toog tey ba màggal gii ñu toog fii bitse bi jeex ba li ci des nii ñu ko jox jànkat yi ma xam ne Serigne Touba. kum dig àllaaxira da nga ci jot ndax nag raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimu wa abdullahi sëñ Tuubaa moom yàlla moo yonente bi moo demandé ci moom mu liggéeyal ko kaw ni xadimu wa abdullahi dalla ni yàlla ala muhammadin waxaada ni muhammadin li samadi lii moo dugal sëriñ Tuubaa ndax bi mu fatoo xalwatu fii ci jumaay sëñ Bàkki Madina jii sëñ Daaru Asan Njaay gis ko da koo xamal ni ko yonante bi dañuy saafa ani rasulullahi suñ borom saafonte nag man ak ko laatante nag man ba ne ma danaa la dolli ñetti weer yi nga def ci xutbu samaan xutbu samaan nag mooy ci moom jamono jibril di dëkk ak yow di di la wàcc si sëñ Tuubaa ni ko loolu xeet naa ko dama bëgg a bokk ci waa ahlu badar was at biyaat ni ab abdullahi kaw ni xaddima yaa ilaahi looloo jur mbàkke baari looloo jur jeewal ñaari guddi yi ndakaaru bureau ba ca Ndar làmbar na Muritani Jolof Jurbel alaama rasulullahi min illahi kaw ni xadimu abdullahi dalaa ni yàlla alaaman bu xaadimu muhammadin di waaye ba liggéey ba matee day danoo jël ki gën am diin ci catholique yi ne ko kii lañ xamul nu ñu koy def ndax pexe mu ne defal nañ ko sëñ Tuubaa moo bind ne ab bis andi date ba andi andi bis ba ne ñaan ci sama tur man mu bon mii ne waxaabalil wa fii sulaasa maa yuxi jilu asata wa takk nañ ma bisub talaata di fukki fan ak ñett yàlla miy maye ñu tiire ma ku ci nekk tiire sa bopp Sëñ Tuubaa ko ne nee na doon nañ dañ ma doon seetaan montagne sent biñ ko bëggee bàyyi sëñ Modou Lo na wàcc na ay soxnaam kokki guy la dëkk sàmm na militaire na def na lu ne ndax fu mu ne sëñ Tuubaa laay seeti ñu rey ko ci yoon wi ba mu demee mi ngi fekk sëñ Tuubaa ay jaan la fa ak ay jiit di raam ba agsi lim njëkk a def sëñ bi da koo tàllal tànk mu commencé di bës mu ne ko ana mu ne mu ne am nga ngor de te booba booba yoon wi neex na de dégg nga booba maam Thierno Birahim ak cereem ja ak gàttam ya Cheikh Issa Dieng nag barke beeg paleem yi ma Massamba Mbacke mi daal di waa laa nii ja fépp di jib ñu yóbbu Serigne Touba foo xam ne mel nu moom doo nga fa nekk ay jiit di ko mat ay jaam am na bis boo xam ne nii kum daan sànni xaalis ko dimbali képp ci ci ci ci ci am mbaar nga xam ne rafiqu laay kitaab yi képp moo tooyut muy alxuraan bi sëñ bi moo bind ne fii daa neex dootuma demati Sénégal maam te ne ko boo dimut dañuy wax ne dangaa loolu ca bindaloon nañ la loolu mu ne kon xaar ma laaj ko suñ borom kon de danaa delluwaat fu mu ko bind rabista ji waltukaa min ma la waytu la daa tubaa lëkk fi ka tub naa fi ka bun yaana loolu mooy sëriñ bi nu andi daal di woy wala xadd karab naa Euh, bi muy dem mu ne sama dem de dana nekk liggéeykatu yonante bi nekk seen jéggalaa kon boo bu mag bi sëñ bi defee loolu dikk ak ni mu nit ku ñuul mais dañ ko yóbbu ci arab yi bu boobaa kon naar yi mën na noo wax melu sëñ Tuubaa ñoo ko raw te ñun faali wuñ ko mais dafa dem kañ ko boolewul xam nga lu ko wax wama xay boo illa ibadatu rabbil wala wa nafsul wala fi sufi wal masaay kii daal benn sikk la am muy ragal yàlla ñaata seex la sëñ Tuuba am murtani fépp la la la sababu xaybat yi an laa alaada an naa la min ut jaam waan akoon a fi daw mi waan akoon a saafi an li xaw mi mais Jurbel bi mu jógee Ceyeen Jolof moo jël kub bi Ceyeen Jolof nga xam te ni nii metti na metti goo xam te kuy dem da ngay am kayiti mbay mokkal alxuraan mën na yóbbaale dund door a dem bi muy ñëw ñu teggi loo ko Touba bi mu àggee Diourbel laa laa ma Diourbel la daal la sa din law ayanoo sira fi sira maa ndax dañoo bëggoon mu jaxasoog nit ñi ak nit yi àdduna ñi fa lañ génni góornóor bu tudd la selbe la selbe mu sut ci tubaab yi sut ci siyaas sut ci lépp fekk na Serigne Touba ba tàyyi mu jàng mu dajji sàkkil fa buñ ko bëggee wax sëñ bi ne daam lu muy seet bàyyi leen moo ne moo ne la sel bi moo ne Seexul Xadiim moo gën ab yonent jikko moo moom moo lay moo lay wax comme Roberto Monti ci Italie Cheikh Fall bind ne rasulullahi de alxuraan ni mu ko weere ak ni mu bañ a rëye ci laa xam ne rasulullahi gën ku yàlla bind te ab catholique ko wax ba léegi Robert Monti laseel ba mii dikk ne sëñ Touba mu gën ab yonente jikko sëñ Touba daj na lu ne de moo ne lim daj de ba ay doom wuteeg ñun ay nit lañu rek da koo def ci ñoom rek kon nag nañ nekk ay taalibe xam ne ku jiitu xaj baw la olof nee na ku jiitu xaj baw la waaye ku xaj baw soo geestoo mu xàllal la nga jàll yoonu murit dafa daj jamono sëñ Tuubaa daa maasale jamono bi mu ko maasalee nag dafa dafa contact lépp ñëw ségguñu ko naafiq yaa ngi ci faramaso yaa ngi ci dóorkat yaa ngi ci lépp a ngi ci biir yoon bi bu ngeen seetaanee fan yii yii xew ci jamono ji lu nu neex rek la wax kon yoonu murit benn point lañu desee ndaw ñi waxe xam-xam jëfe xam-xam tam ngi commencé te loolu bu université Cheikh Mouhamadou Mountakha bii moom laa waroon a jiite noppee lépp jot te ki ki ki raw ci Afrique juróom mi xam-xam maanaam ki ra ki am ni Sénégal benn sociologue lañ am bu fi jàngale ñaar fukki dem Amérique li tax ma koy tudd dafa wax ci sëñ Tuubaa muy Souleymane Bachir Diagne moo ne murid yi am nañ léegi ay ndawi philosophe ak ndawi xam-xam ab professeur arab tontu ko. mu ne ah ndawi murid ñu ne gis naa ci ñu am njàng xool leen li sëñ maam moo di formé ndawi murid yu yu yu am ay xam-xam lool te loolu day dox di continuer développement moom sëñ Tuubaa moom moo toj fépp da nga daan wér tur yàlla ak si fu tur yàlla wa àgg rek mu mottalee la foofu waaw mu mu mu mu mu mottalee la foofu ndax Cheikh Ibrahima Cheikh Adama gi bi mu ko yónnee. ak am mbubbam dong mu jox moo xeeñ ci mu topp ko ba ci moom xam nga leer day gide téléguidé loolu lépp nag tubaab yi def nañ ko léegi muy ay nitu kaay ak ay lépp waaye sëñ Tuubaa mën nañu ci aar nag niñ ci aare mooy nañu continuer am kilifa te mooy te te moytu tontu wax ju amul njariñ olof nee na wax ju ñaaw dëkkut fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo nañu góor góorlu ci ragal yàlla ñun sëriñ sii yor nañ jikko jub bon su ma toogee sama kër seex bàkku amul dépasse keppaar gi sedd man naan ñaari gooxi café xam nga lu may daal di waxa léegi xeeb naa la sëñ Modou Fadi xari yoroon léegi sëñ ma sàmba lañ may dóor ma naan gis naa ko bi kafe gi doo nga ma jàpp kafe gi café gi man naan moo ma jàpp bu ëllëgatee ñu day ñëw ne ma maa la gént bi bi léegi laa doon waxtaan ni nga gis ma dara du ci dëgg nañ bàyyi barke bu bari bi sëñ Basiiru doomu sëñ Tuubaa la sama baay tudde na ko doom da daan ñëw di di julli see këram tàkkusaan Cheikh Abdoulaat sëñ Tuubaa sëñ Moodu Faatixa tudde na ko doom sëñ Moodu Mustafaa sëñ Moodu Faatixa tudde na ko doom léegi nag <coughs> kenn seeteetul kenn kenn wóorumaal tul kenn léegi da ngay gisul sëriñ sax nga su jóotal ko yow sëñ bi summi sa mbaxana moom magam ñëw mu jox ko cati baaraam loolu fuñ ko teg koomu kilifa nag seytaane du sa kilifa sani bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika bi mi wala su tabi waxat moom ti wasal wasalam tani ñaan jii day nee nañ lu ci ñaan nit mu nungu bu ko nunguwut yàlla dana la war ne dala koo dencal sama aajo faju ak aajo yu mboolem ko aju ci man ir am jameel wala yaa diendala maata maa xat naa xalqu min dan bi jaaf la jaa bala maa wal bu yow borom site bi na nga introsé jëwlin yëpp ak ñi daan ñi war a wax ñëpp ba ci jigéen ñi dégg nga danaa la yeewi ba bu déwee nit yi yoway njëkk ñëw ndax man dama dul ab dóorkat sëñ bi koo xam ne 1995 la commencé di liggéey ba tey ab oto daaw la koy door a am dégg nga maanaam ñi bu baax sax awmu ko damaa jël sama àllaaxira jëndi ko man sama àdduna damaa jël wabtaqi fii maa aataaka Allaahu daar aaxira wa laa tansa nasiibaka min na nga introsé ñëpp na nga ma sant sëriñ Murtadaa bu baax ak rakam sëñ Maam Moor ndax ñeenti si diggoon nañ ma ak ñetti tele waaye maay bañ folklore nag ak mel ne damay dóor yooyu te man damay liggéey samay taalibi di liggéey ma yor ay tub tànk bëgg ñu jaar ci li nu sëñ Tuubaa dikkal te bàyyi li nu jamono tere ndax jamono kat suñ ci duggee ba xuus ci te am duñu benn technique bi ak benn développement benn mus gi jamono dana nu yóbbaale ñu perte àdduna perte àllaaxira yàlla na ma ci yàlla musal maag ku aju ci man saa mbokk sama xaj sama wël sama taaj sama am di jàmm te yàggal fi sama way jur yi ma fi dese nag ci barkeb sëñ Tuubaa te yàlla sàmm Serigne Fallou Mbacke sëñ Modou Fall yàq yàggal ko ci xilaafa gi yàlla daa dogal ñii xalifa yépp dañuy samay xariti bopp sëñ Fallou danoo yàgg ba sëñ Fallou mii laa ko tuddee sëñ Maam Mor dama koy siyaaje di ay kaas ak yépp kon nag yàlla nañu yàlla may liñ fas ci kër sëñ Modou Fati xarit kër sëñ Massamba yàlla sañ borom yàlla na ko def daaw nag li tax ba tey jii màggal gi am problème daaw danoo corona danoo fàtte génne barkeelu sëñ Touba bi daaw dañoo waxtaan Fatick Fatick génne barkeelu ma moo tax daj nañ fi loo am dootuñu ko dolli de te bii ma fu xaalis bii huit cent francs la moo ko may sama doom dallu sëñ tuubaa bu mu demee woon ci géej gi maa ko ne coppet aw karbat waaw xam nga lii daaw dañ koo fàtte xel day fàttu mais buñ ko defoon lii du nu daw dégg nga musuwaar bii sëñ Saliou moo ko jox dégg xaalis bii moo ko may sëñ Moodu mii bi muy ab liir xoolal kon tey boo ne woon sëñ Mourtala Mbacke maa ngi wecce du ma sëñ may mbaxana mu sama bàyyi daal fatoo xalwatu gis nga ñi taxoon waaw waaw borom sit bi neen day kii ñu daal di jublu ci mbindum sëñ Masamba ak mbindum sëriñ Touba xollin bi sëñ Masamba nag daa mënoon a bind nag xollin xasaay gii gii nii lii sëñ Touba bind xoola moo ko bindal boppam ci loxoom adressé ci boppam gis ngeen moo sëñ Masamba ngi nii moo sëñ Touba ngi nii Xaadim Rasul lii moom si kii ma ci daan def la rek bam bam ñëw noonu waaw xanaa fi may jeexal samay wax mooy am naa ci turandoo fukki turandoo ak juróom-ñeent euh, xat yi tamit sëñ Tuubaa ko may sëñ Moodu ci loxoom digtal ko ne ko dee leen yar te di leen teral sëñ bi lu ma mën a wér lu ma mën a sangoo lu ma mën a def sëñ bi xati yii su ma amul gerte sama dara du dox barki sëriñ Tuubaa laaj ko Daawuda Saw waaw man nag lu ma def defaale ci ñëpp ren daal ñaanuma damaa dog nday mareem dégg ngeen ko bàyyal yi jërë jëf soxna ba jërëjëf bi jaay afdali man lilaa xat la jaa wa salliyan ala nabi wa sallim wax di bi ajjate kulli muslim barkeb xaadim rasul deux mille quinze ngay commencé samedi la woon Magal Touba deux mille deux mille quinze samedi ga di àllarba ga ca topp di dimanche ga ca topp di alxamis boo ko xoolee bis bi boo ko calculé juróomeelu fan bala bi mu defee noonu nag ba màggalu Touba 2017 di alxamis ca diwin sa ba léegi day yokk benn bis daaw al daawaati 2000 alxamis ba mu ko nekkee nga ne alxamis ajjuma gaaw dimanche altine daaw muy talaata ren di dimanche déwén na ko comité de organisation màggalu Touba yëg alxamis aljuma mooy màggalu Touba ci kàttanug yàlla tombeek la 14 di anniversaire Alaaji Abdou mooy bisu màggalu Touba jàpp leen ko jër ngeen jëf muy tawfeex ju